Real Madrid nappaaje na Chelsea ñeenti bal ci dara bu nu boolee ñaari ndaje yi nga xam ni a def nañ ko aller retour bu ci na goney Madrid yi yitti nañ Chelsea ñaari bal ci dara ginnaaw bu ngeen demee fu fële nga xam ni mooy Ndakaaru ak Touba Mbacké kilifa gu mag gi ci wàllu listixaar di sëriñ boo xam ne bu ñëpp doy loola mu defal leen ay ñaan ngeen dellusiwaat ci Aladji Malick TV ñu àggale xibaar yi mbaari seexul xaddim ji nga xam ne ah, mooy Serigne Mouhamadou Lo ah, nekk koo xam ne ah, ku sell la ku ñëpp ràññee ci li nga xam ne moo nekk mbir yoo xam ne yu sell la yu am solo yoo xam ne yu jub xocc moo tax Aladji Malick TV am fitu ñëw teg ko ci taabal ji ci publicité yoo xam ne ànd na ko moom nga xam ne loolee day am solo bu baax a baax ñu gëstu ko ba léppam nag a jaar yoon moom mii ma xam ne mooy kilifa gi lépp loo xam ne jëm na ci wàllu listixaar di ak seet lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ci nga xam ne maanaam ñoo bëgg soxna te bëgg xool ndax jig na leen ñëwee ci moom moo ca gën a aay yi nga xam nag jaaro yu mucc ayib la yoo xam ne euh, bu la ko takkalee nga xam ne lépp dëgg la euh, ndomba yenu yor nag ci lépp loo xam ne euh, jëm na ci xeetu kaaraange ndax jamono jii ñu toll képp koo xam ne yaa ngi dox te amoo kaaraange yaa ngi ci erreur sëñ bi mooma ci doy jàmbaari fàkk tëdd ji jàmbaari tubaa ji jàmbaari seexul xadim ji nga xam ne lépp loo xam ne jëm na ci lu jub juba ko sonal da ngeen koy fekk fële ca ndakaaru ca mariste jufalanteeg moom wala ngeen woo ko ci numéro boobu du ngeen ko rëcc onze euh, pour la onzième fois Real Madrid di dem ci li nga xam ne mooy demi-finale Ligue des champions loolu ci fukki Ligue des champions ak ñett yi nga xam ne moo mujj am euh, bu ngeen jàngatee loolu bu baax a baax euh, fukki ñett ak fukki ñetti Ligue des champions yi nga xam ne moom lañ mujj a yebbi Real Madrid daanaka lépp moo ko falaxe ci ab demi-finale boo xam ne ma nga cay dem loolee nag histoire di ko bind a tey musta am ci histoire football li nga xam ne Real mu ngi ko commencé def ci digganteem ak nawleem li nga xam ne daanaka ëmmatul nawle ci li nga xam ne mooy football adduna wala ngal kàpp ci ba Courtois match boobee mu taxawoon ci uh, bu am solo uh, tëj ay kaam ñaari yoon match aller uh, benn bii jigewul ay kaam mu jël loo xam ni lu am solo la tey ki nga xam ni mooy Rodrigo danañ ci dikkaat ci vidéo bi ni dikk waaye ki nga xam ni mooy Vinicius Junior moom it dafa xawoon a nege nege ci match bi waaye tous tasar la goney Madrid yi